ñun population bu suun ak village yi nga xamante ne nii moo ñu wër comme Mbadat Landu len, Càmbox euh, ak li nga xamante ne nii ñu wër ngi daje tey ci samedi bi 6 février 2021 ci daje boobu ñu ngi leen di ñing koy yëgal wa Sénégal gep di ko yëgal àdduna bi yëpp ci benn situation bu grave bo xamante ni ñing koy dund et situation bobu nak mën na dem ba mu ëpp loxo loolu moo dañu jekki jot ay information ak ay rumeur yi nga xamante ni xamuñu ci lan la tegu ñuy wax ci mbiru tey fa tey suñu alal bi nga xam ni moom la yaakaar mooy suñu suuf te suuf soosu ñuy dégg ñu ciy coow moom lañu yaakaar tey moom la yaakaar ëllëg moo tax ñun tamit loolu biñ ko jàngatee mu doon lu ñu metti lool euh, depuis lu yàgg ba léegi population Suun ak li ko wër jot nañu mbëkkanteeg lu mel ni AIBD wala lu mel ni ay service su état ci mbiru suuf depuis bu yàgg ba léegi te ci loolu lépp luñ ci mënoon yaakaar nañu ne joxoon nañu leen ko kon tey fa tey bu ñu doxee ba jot ci ay rumeur yu nga xam te ne nii tiital nañu que ne suuf si bëri na ñi ci fas yéene teg loxo ci tegin boo xam te ne ni ñun xamuñu nan la demee kon dafay jaadu ñu yëgal ko waa opinion nationale waaye it yëgal ko waa àdduna bi yëpp mu mel ni itam suuf soosu ñuy wax ñun ñi nga xam te ne bi ñu ko moomeek léegi depuis euh, jamonoy maam ba léegi moom la ñu xam moom la ñu miin ci loolu itam xam nañu ne domaine national bi ak ñëwam ak superficie bi nga xam te ne nii moom la ñu moom ci 72 hectares yi nga xam te ne moom la ñuy wax am nañ ci ay papiers yoo xam te ne ni yu wóor la waaye ci 70 hectares yooyu tamit fekk na ñun tamit am nañu ay papiers yi lotissement yi nga xam te ne ni defoon nañ ko ak ay papiers yu valable yoo xam te ne ñu ngi ci suñuy loxo kon dafay jaadu tey ñu mën a xam ne dëkk bi am na ay kayit yi nga xam te ne ni ci seen lotissement yooyu noonu terre yooyu noonu ñoo ko moomal suñu bopp ndax am nañ ci ay kayit yu wóor kon suuf soosu mën nañu am yaakaar ne amuñu xel ñaar que suñu suuf la looloo tax nag ñun population suun ak li nga xam te ni moo ñu wër mooy dëkk yi ma lim sànk ñu ngi alerte ci bépp xeetu ci bépp xeetu tentative wu jël suuf soosu wala jéem koo nangu wala jéem koo confisqué bopp euh, ñu ngi koy moytuloo ñi nga xam te ne ni ñoo ko bëgg a def ñu ngi leen di yëgal ne itam ñun population suun ñu ngi leen di wax ne suñu engagement ci suuf soosu euh, jël nañu engagement pour taxaw suuf si nga xam te ni moom lañu moom ñu ngi fàttali itam ne euh, li wérte wóor ñun suun sacrifice bi nga xam te ni mënoon nañu ko def nañu ko mooy suuf si nga xam te ne ni moomoon nañu ko ñu bàyyil ko ñi nga xam te ne ni mooy Sénégal gépp mooy aéroport suuf si ñu amoon ay tool yi nga daan xam ñi nga xam te ne moom lañ daan béy ak li nga xam te ni jigéen ñi fa lañ daan utee mat ak yu demee noonu yëpp bàyyil nañ ko aéroport tey kon li nga xam te ne moom lañu dese ci suñu loxo la ñuy ñaan ñu bàyyil ñu ko. lépp loo xam ne aéroport bi soxaloon na ko ci suun ba mu koy jël ñun waa suun musuñu bañ musuñu naqarlu musuñu ñaawlu kon rafet na tey bu ñu jëlee liñ jël li ci des ñu deseel ñu ko amuñ ci lenn lu ñuy liggéeyee mu bàyyee ñu loolu. kuy gas pullo bay yoori goj kon weesu nga reen ba yaa xam looy wuti wante reen bi weesu nga ko bu yàgg. mooy ne boo jéemee yootu li ci biti daal wax dëgg yàlla leneen ngay wut wante du pour aéroport rek ah loolu daal moo fi tax a daje yëgal ko Sénégal yëgal ko àdduna bi yëpp suuf soosu sunu maam yi ñoo fi dëkk ay ati ati ay siècle siècle ñu bàyyil ñu ko amatuñu fenn fu ñuy teg tànk lii rek la ñu dese loolu daal la ñuy ñaan ki ñu koy bàyyeel